ci présents, Cheikh Alassane Sek, Sen, Alioun Sar, Aminata Touré, Assom Aminata Diata, Ibrahima Gueye, Alingui Ndiaye, Babacar Gueye, Bougane euh, Birima Mangara, Ibrahima Sissoko, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, Alioun Ndiaye, Cheikh Mamadou Dieye, Mohamedou Fadel Koné, Alpha Thiam, Serigne Mboup, Abdoul Khadr Sall, Déthié Fall Babacar Diop Samba Ndiaye Elage Mamadou Diao et Aïssatou Mbodj. Donc euh, nous nous sommes constitués en, comme je vous l'ai dit, collectif de 28 candidats pour saisir le Conseil constitutionnel en recours. Nous nous sommes d'ailleurs euh, appelés, le collectif des candidats spoliés, parce que ce qui nous réunis dans ce collectif, c'est que nous avons tous eu un nombre important de nos parrains qui ont été disqualifiés, nos parrains sénégalais qui, qui ont un droit constitutionnel reconnu par la Constitution, qui nous ont parrainés sur la foi d'un document administratif qui s'appelle la carte d'électeur. Et nous avons consigner tous les informations qui se trouvaient sur ces documents. À l'arrivée, nous avons eu tous des milliers de parrains qui ont été déclarés non identifiés dans le fichier électoral. C'est une première dans l'histoire du Sénégal. En termes de volume, nous avons entendu évidemment la Sénat dire que sur un ton très apologétique, qu'elle n'avait pas encore euh, mise à jour son fichier. Donc la question que nous nous posons, c'est de quel fichier, à quel fichier faut-il se est le fichier qu'utilise le Conseil constitutionnel pour contrôler le parrainage Donc, euh, le résultat de la vérification des listes ont montré un nombre important d'électeurs par comme je l'ai dit, qualifiés de non identifiés au fichier général des électeurs, alors qu'ils sont bien des électeurs détenteurs de leur carte d'électeur. Mais semble-t-il que pour des raisons que nous ignorons, ces électeurs-là ne figurent pas sur la liste électorale, sur le fichier électoral sur la base duquel le contrôle des parents est effectué. Alors, il est évident qu'un parrain qui dispose d'une carte d'identité CDAO, d'un numéro d'identification nationale, d'un numéro de carte d'électeur, on ne voit pas comment il pourrait disparaître du fichier. notre cas zéro s'appelle Mohamed Ben Diop. Il est candidat à l'élection présidentielle. Où est-il Il est juste derrière nous. C'est un candidat comme euh, les 27 autres, qui a déposé ses Voilà, euh, il a sacrifié tout le processus. Et à dans le contrôle des parents, un certain Mohamed Ben Diop ne sur le fichier. C'est du jamais vu. Il a voté en lors de l'élection législative. Il n'a pas changé de bureau de vote. Et à ce que je sache, M. Diop, vous n'avez pas changé de patronyme non, plus. voilà notre cas zéro qui s'avère être un candidat lui-même. Nous avons demandé le rétablissement de tous ces parrains dans nos, nos, nos, notre stock, notre quota d'électeurs.

ses parents en tant que Sénégalais, tout simplement, parce qu'avant d'être parrain ou électeur, ce sont des Sénégalais qui disposent d'un droit que leur accorde la Constitution du Sénégal, c'est-à-dire le droit de voter, d'être un électeur, ce qu'on vient de leur dénier euh, de manière manifeste. Nous avons donc euh, déposé euh, cette requête-là. Mais ce qui à aggraver le, le cas, on peut s'exprimer ainsi. C'est comme je l'ai dit, la Commission électorale nationale autonome, la loi qui l'institue dit clairement qu'elle supervise toutes les élections, toutes les consultations plus précisément, électorales et référendaires. Ben, cette même Sénat nous a dit dans un communiqué laconique que le fichier n'était pas mise à jour. On est aujourd'hui le 8 ou le 9, le 8 janvier. Nous sommes à une encablure de l'élection présidentielle et vous avez des centaines de milliers de Sénégalais à qui on risque de retirer un droit fondamental qui est le droit de voter. C'est un droit inaliénable, en effet. Et le risque que tout le monde perçoit, que vous allez avoir des centaines de milliers d'électeurs le jour de l'élection qui vont dans leur bureau de vote, tel que mentionné sur leur carte d'électeur, et qui se, qui verront, qui se verront refuser ce droit inaliénable de voter. Cela ne s'est jamais passé au Sénégal. L'élection, c'est le 25 février. Nous sommes dans une situation de, de désordre complet. cas, moi, pour ce qui me concerne, puisque j'ai deux casquettes, je représente un collectif, mais je parle aussi en tant qu'Aminata Touré, candidate. Je considère que tout cela n'est pas fortuit. Il y a une volonté manifeste de supprimer des candidats par cette méthode qui est une méthode euh, inacceptable et intolérable et qui ne sera pas tolérée. Le collectif ne compte pas juste euh, adresser une lettre au Conseil constitutionnel et, attendre. nous, aurons, nous vous édifierons sur le plan d'action et nous aurons une détermination à la hauteur de, de l'agression qui nous a été faite et à, l'ensemble des Sénégalais. Parce qu'au fond, nous parlons aussi au nom de ces, de ces centaines de milliers. On va additionner le nombre d'électeurs qui ne figurent pas au fichier et vous verrez que ça fait une différence dans une élection, une différence nette. Et en plus, cela peut entraîner des risques graves pour la stabilité du pays. Est-ce qu'on vous a donné les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas disposer du fichier Aucune raison n'a été donnée. Aucune. Ça, c'est un fait constant. Et euh, nous euh, comptons défendre euh, ce droit constitutionnel, ce droit démocratique, avec l'ensemble des Sénégalais. Parce que c'est une question qui, qui nous dépasse, ce pas une question individuelle. nous avons d'ailleurs parmi, nous avons d'ailleurs parmi, nous avons parmi, nous avons euh, les requérants, des candidats qui ont été validés, hein, qui n'ont pas eu de, parents euh, non identifiés, ou en tout cas qui ont été validés pour euh, cette séquence

un niveau d'organisation, pour peu qu'on soit objectif, on sait que cette situation ne s'est jamais passée. Le calendrier est très serré, nous sommes de 50 jours de la présidentielle. Vous pensez avoir assez de temps et vous allons nous battre jusqu'au bout. Et nous interpellons euh, les sept membres, du Conseil constitutionnel, mais c'est des membres, pourquoi on ne les appellerait pas membres Est-ce qu'ils fassent preuve de sagesse La sagesse aujourd'hui, c'est d'arrêter ce processus-là, qui n'a aucun sens. Il n'y a aucune rationalité qui peut être apportée aux décisions qui ont été prises. Nous allons produire des preuves écrites, nous avons une preuve vivante. On a tenu à ce qu'il soit là. C'est un candidat lui-même qui dispose de sa carte, mais ce sont des centaines de milliers. Puisque beaucoup de Sénégalais qui nous parrainaient nous ont fait confiance et nous ont envoyé aussi la photocopie de leur carte d'identité et de carte d'électeur que nous avons par devers nous. Lorsqu'on a regardé l'audit voilà, de ce qu'on a appelé euh, les parrains non identifiés, mais ils figurent bel et bien sur la liste de nos parrains. C'est une forme de sabotage aujourd'hui du processus électoral qui présage, qui présage, et je, pèse bien mes mots, voilà, d'une un, tentative pour moi, en tout cas, d'aller vers des élections qui seront transparentes et équitables. et erreur, nous n'allons pas l'accepter. Cette erreur des électeurs non identifiés, est encore corrigible Est-ce que vous êtes confiant qu'elle puisse être Elle doit être corrigée. Ah, et c'est le, le, sens de notre requête. Elle doit être corrigée. Vous dites que quelqu'un n'est pas identifié sur le fichier. Il se présente, M. Diop, avec sa carte d'identité. Mais la réaction normale de toute administration normale, c'est de le rétablir dans la liste. C'est de le rétablir. De nous restituer nos parrains qui ont été tout simplement volés. la commission Il faut que ce soit réactualisé. Il ce soit réactualisé. C'est un droit inaliénable de tous les Sénégalais qui disposent de leur carte d'électeur de parrainer qui ils souhaitent. Et c'est aussi notre droit, après avoir euh, produit beaucoup d'efforts, parce que le, le parrainage, ce n'est pas une chose facile. Hein. Voilà, les nous ont fait confiance partout dans le pays. Et voilà que du jour au lendemain, on nous dit, voilà, ces Sénégalais-là n'existent pas. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Non identifiés dans le fichier. N'existent pas pour ce qui concerne euh, l'élection présidentielle à venir. Il y a d'autres cas particuliers. Parlez-moi. notre... Madame, vous voilà. la procédure de parrainage Bien sûr, le contrôle de parrainage. Le contrôle, oui. qu'on rétablisse. mais le calendrier, il, est au service de la démocratie. Ce pas la démocratie qui est au service du calendrier. Il bien comprendre. Voilà. Kon euh, ñu ngi leen di maa ngi fi tey ci turu mbootaayu candidat yi nga xam ne mat nañu fi ñu toll euh, vingt-huit ñaar fukk ak euh, juróom-ñett ci liste bi dinañ leen ko jox ah ñu ñëw tey indi bataaxal boo xam ne bataaxalu ñaxtu la ci conseil constitutionnel bëgg nag mu delloo ñu suñu parrain yi nga xam ne ba ñu ko indee dañu ne gisuñu leen ci fichier bi loolu kenn mësu koo gis sëñ Mouhamed Ben Diop ana mu ngi nii candidat la andi ay liste parrain la mu njëkk a def mooy parrainé boppam ni ma ko defee ak ni ko keneen defee ba mu ñëwee ñu ne ko gisuñu la ci fichier bi yow mënoo parrainé sa bopp te pourtant mu ngi yegg carte électeur am carte d'identité am élection législative yi weesu wate na mësta changé bureau de vote te yaakaar naa ne it mosoo changé sa tur nii sa sant ñu ne ko gisuñu la ci fichier bi dégg ngeen ko sànq maa ngi fii ak honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké sëñ bi yow ñaata. 15900 15900. Assom Diatta madame le ministre 40000. Cheikh Alassane 21000. mille ngeen ko dajalee du ngeen cinq cent mille ci ñëpp. loolu kenn mënu ko nangu ci mim réew. dégg ngeen Sénat bi nga xam ne moom la ñu tuddee commission électorale. national autonome boo xoolee loi bi nga xam ne moo ko sañ nee nañu Sénat mooy saytu bépp mbiru élection ak référendum ci article 2 ci loi boobu dégg ngeen Sénat ne ah ndax dañ fi gisoon ci réseaux sociaux yi naa ah, dem leen ngeen xool ci site Sénat ndax yéen yéen a ngi ci fichier bi Sénat ne ah moom daal jarul ngeen ciy dem ndax ñun pareeguñu fichier ba daal pareegut waaw kon fichier bu pareegut moom lañ jàpp ne moom la conseil constitutionnel di defee contrôle ban fichier la nañu ko wax ban at la ñun xamuñu ban fichier lañ yor waaye boo yoree fichier wu 2017 ki bindu 2018 ba 2019 ba 2024 doo ko ci gis boo yoree fichier wu 2019 ki bindu 2023 wala bindu 2022 wala bindu 2021 doo ko ci gis waaw kon ñun li ñuy laaj mooy d'abord. ñu taxaw ñu arrêté li yëpp ndax lii nuruwut da leen lu dul tentative de njuuj njaaj amut neneen luñ ko mën a tudde nit ñi nag ñu xam ne président Macky Sall mu xam ne ñu newoon ci mbir mi pour defuñu ko ay fo dañu ci def suñu ñaq suñu engagement seeti ay sénégalais ñu wóoluñu candidats yi ñun ñëpp jox ñu seen pièce d'identité da ngay gis ñu ne la Fatou Ndiaye ma ca Saint-Louis ah, ndax saint sax sama làmmeñ wi mooy ñun dañoo dem ñu nañu Saint-Louis sax gisuñu ko ci seen ci seen ci seen ci seen ci seen clé waaye greffier ba ba muy bind moom gis na ko ay indi sa Fatou Ndiaye yor copitu carte d'identité am turam santam numéro carte d'électeur am numéro d'identification nationale am date d'expiration yaa ngi ko yor de machine bi ne la noo gisuñu ko muy ay junni junniy junniy sénégalais yoo xam ne bu nu ca yeggee du ñu wate du ñu wate ku ñu gisul ci fichier booy pare ne boo demee ci bureau d'électeur doo fa wate ji kooku nag moom la muy nuru mooy jéem a jaxase ay élection ak njuut njaaj ak éliminer ay candidats. wax dañu war a arrêté lii yëpp ñu delloo nag pare yi nga xam dañ koo sàcc man noonu laa ko jàppee. est-ce que temps bi taxaw. démocratie bi dox li muy dox élection ci démocratie lañ koy teg lu ci affaire u parax parax éliminer ñi nga bëgg a éliminer voilà yow sab candidat nga seetal ko ñu yema mbaay loolu du mën a am. jox nañ jox nañ ay raisons lu tax lu joxe fi ciem moo tax xamoo ndax fichier 2017 lañ yor wala bu 2018 wala bu 2023 kenn xamu ko. amul ma la ci jàpp parce que gisuma ko. lañ ñu laaj mooy ñu jox ñu ko ñu delloo ku ci nekk sa ay parrain. ñu delloo ku ci nekk sa ay parrain ñu bàyyi njuuj jaaj gi nga xam ne moom la nu bëgg a indi pour éliminer nit ñi. lan mooy tontu conseil constitutionnel. tey lañ ko déposé ñu ngi xaar du ñu yem nag ci déposé rek dem toog de déet déet lii sunu droit poli démocratie la weesu nañu ñun. wax naa leen ay junniy junniy sénégalais yo xam ne bu élection jotee du ñu wote ji parce que lañu ñu bëgg nag mooy fa nga xam ne favorable ñu fa muy ndaw ñeeg ñu ni mel voilà du ñu bokk. sëñ Abdou nee na Touba la ñu fa wàññi lu bare bare bare bare te du moom rek moo voilà moo fa nekk ñu wàññi ko. kon loolu moo doon tey li nga xam ne moo tax ñu indi bataaxal bi euh, ñu tuddee ko recours pour que dans les meilleurs délais conseil constitutionnel. delloo pare yi nga xam ne man dañu ma jàpp ne dañoo sàcc suñuy pare dañu ko delloo sénégalais yi ñu delloo leen seen ye seen yelleef ndax mënoo yor sa carte d'identité yor sa carte d'électeur ba ñu ne nga dem bindu ci liste yi nga dem bindu nga pare ne ñu ñëw ñu ne la ñoo gisuñu la loolu kenn mënu ko nangu. est-ce que seen collectif bi ñi nga xamante ni seen clé kenn mënu ko exploiter est que ñoom aussi bokk nañ ci requête. waaw mais ñoom ñëpp loolu loolu ñoom ñëpp la parce que bu ne yow ubbi wuñ sa clé. yow say parrain kay kooko kooko gën a métti la sax mooy boy seet mooy yee boy ko yees yow indi nga ñu ne la non sa clé bi moom parce que ñoom it expliqué nañu lu tax mënuñu mënuñu ubbi seen clé am na ku ñu ne ñun ba ñuy laal clé ba la leen ne lii bu ngeen ko defee clé ba day yàqu ñu ne ko non non non yow toogal rek waaw mais ban façon élection mooy bi ban façon élection mooy lii président Macky moom bañ koy fal 2000 2000 2012 fii la jaar est-ce que dañ koo tiré au sort fan ngeen ma gis président la république boo xam ne dañ lay asaaloo asa bombe wala dañuy lotori kenn su ko gis kon kay bu dee loolu nañ teg yëpp ci suuf 190 candidats lañ wante du ñu def lépp ci mbuus ci président de la république bi na yaay président bi xaalis ba ñu jël ko jox ko néew ji doole ji jënd ci ceeb ce n'est pas sérieux te nag ñu xam ne lu mu leen jaral rek dina leen ñu jaral lu ko ëpp maa ngi leen di sant ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax